Abdoulaye Fane maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay nuyu di la sant. Abdoulaye Fane nga nekk njiitu union nationale des associations des parents d'élèves étudiants euh, du Sénégal euh, ubbite école bi naka la demee seen côté. waaw di sant yàlla bu baax bi ñu mayee ñu dal di koy téewe teewee eh, di wax ne rek am nañu yaakaar ren ndaxte daaw grève yi bari na ay coow yu kenn xamul ba finalement euh, gouvernement bi def na effort vraiment question yooyu moo leen ko réglé mu ngi suñu ginnaaw. Euh, peut-être nag euh, ubbite moom benn yombul waaye nag euh, ren li ñu xaw a jànkoonteel tuuti mooy ndox mu bari mi te particulièrement dans la banlieue et certaines écoles de l'intérieur mais dispositif boo xam ne bii gouverneur rek préfet ñu ngi ko doon defal inspecteurs yi pour quand même ñu dal di évacuer ndox mi dal di assainir donc loolu mu ngi am xam nañ ci dara parce que suñu bànqaas yi nekk ci département yi ñu ngi ñuy informer par rapport à cela donc euh, loolu daal moom mooy kii bi te comme gàmmu gi fi mu ne nii euh, ginnaaw suba la euh, am nañu yaakaar ne peut-être altine au plus tard le dix dina mën a vraiment fexe ba école dal di ubbi ci anam yi nga xam ne moom la koy yaakaare te ubbi jàng boobu tey boobu ñuy wax wax naa ko sànq ci tubaab. Mm-hmm. bu ñu rek dañu naan bëreet rek ñëpp ubbeendoo ci benn bés. loolu amul fenn donc ne daal zone bu nekk dafa am ay réalité am li valable plateau googu nga xam ne mën na ñëw rek ubbi ubbi ñu réew lak fële di kër de si sama dëkku cosaan nga xam ne ñoom il faut ñu dal di defaraat abri provisoire yi dal di kii ak yooyu béy école baak yooyu donc ñu jàppe ne rek processus la boo xam ne dinañ am ne fii au moins une quinzaine de jour ñu mën a ubbi ci anam yi nga xam ne moom moo gën voilà. Euh, fourniture yi nee nañ dafa cher trop parents d'élèves yi naka la ñuy def ak mm-hmm. euh, dund gu chair gi boole si mm-hmm. fourniture yi cher mm-hmm. trop. waaw loolu moom am na euh, xam nga bu ñu nee fourniture dafa cher dama ci professeur di wax ne ñoom ñoom waroon nañu bàyyi xel d'accord fourniture dafa cher waaye lu tax ñoom ñu dal di jël trent milliards ne dañ koy jëndee ay yére di ko jox xale yi maanaam ay blouse te yaakaar naa ne. jëloon na xaalis boobu dal di koy wàññi même buñ ko subventionné fourniture fourniture yi mu wàññeeku ci prix ba pare ñu dal di defar ay toilettes muré yenn écoles yi dal di leen jox ay matériels yoo xam ne xa jàngalekat yi dinañ ci mën a jukkul ay règle ak ay compas ñoom seen bu ko defee dina mën a permettre quand même jàng mi dal di tegu ci yoon mais jël lu ba trente milliards dal di koy joxe jënd ko ay tunu dugg ci salle de classe dara batu fa defe naa ne loolu baax na ci ëllëg si bu ñu def yu mel nii ñu mën ci bàyyi xel ñu ngi xalaat nag état bi comme temps yi def nañ conseil présidentiel sur la cherté de la vie boole nañu ci loolu pour permettre au moins dans un premier ñu respecter terme circulaire boobu ma doon wax 44 65 boo xam ne bii dafa ne diggante juróom-benn téeméer ak ñaari junni moom la ñu war a libéré je crois que loolu eh, gouvernement bi moo ko war a kii ñun nag ñu ngi ci waxtaan bi ko saytu te ñu daan laaj nañu suñu bànqaas yëpp bi nekk ci réew mi. pour fépp foo xam ne gis nañu ko def lu weesu ñaari junni ñu ko koy yëg bu ko defee ñu ne lañ def benn listing dal di koy bind waaye ko ministère de l' éducation nationale parce que ñun mën nañoo sanctionné mais dañ leen mettre demande leur responsabilité bu ku ko def nag te moo xam ne nii waru ko def dina ko jébaane dal di koy wasaare ba ñëpp dal di xam ne kii li muy def tegu ko ci yoon voilà. Euh, ñu gis ni euh, tamit inscription yi dafa daal di euh, yokk yokkute boo xam ni ñu ngi koy daal di wax est-ce que lu ni mel dëgg la Ibra Abdoulaye Fane. dama bëgg a wax ne inscription yi depuis deux mille dix Kalidou Diallo développé moo doon ministre la ñu ne woon juróom-benn téeméer la ba ñaari junni bu ko defee bu ñu inscrire ba pare dinañu may permettre Serigne Mbaye Thiam moom moo signé woon kii boobu dinañu permettre. parent bi mu dal bi fex fii ba mille décembre 2022 mu mën a seet bu fekkee ne mooy yi matu matu ko wala moom ay doom ñu bari ci école bi mu mën a seet nu mu koy defee ndànk-ndànk donc du kenn dax benn xale parce que libéré wul fu ñu yóbbu frais d'instruction bi ñun de am nañu taxawaay boo xam ne bu ñu ko yëgee dinañu dem wax ko fañ koy wax ba xale bi dal di jàngiwaat bu ñu leen stigmatisé daal loolu lañ ci mën a wax nañu jàpp ne daal c'est entre trois ji beneen dépence nag boo xam ne bii dañ dafa war a tegu te école bi mënu ko parents yi mën nañu daje en assemblée daal di ne kat mën nañu yokk ku nekk cinq mille wala dix ñoo xam bu boobaa ñoom ñu dal di seet bu ñu koy gérer pour jël bu ñu en appui ak ne moom moo am ci école bi loolu la daal mais boo amee deux mille élèves ñaari junniy élèves nga dal di koy am ku nekk bu defee ñaari junni mais mais mais mais ñaar fukki millions la vingt millions. vous vous rendez compte un établissement vingt millions dugg fa te doo gis ñu dal di defaraat table ba yokku doo gis matériel bi dal di mat peinture ñu classe ba jënduñu ventilateur ak yooyu te loolu day am ci école bi te ñun nag léegi dinañu saytu gestion yi nga xam ne moom moo am au niveau des établissements publics kii scolaire parce que ñun ñooy libéré suñu xaalis di ko fa dugal te du ñu nangu nag la ñu fay dugal mais dal di koy bàyyeeg ñoo xam ne ñi dañu koy dépenser na mu leen neex euh, ñu gis ni tamit euh, école publique bi dafa dem bay niroog ab euh, privé mm-hmm. loolu lan ngeen si xalaat parce que pratiquement li ñuy laajte ci école publique bi on a l'impression que xale bi privé lay jànge ba léegi. loolu am parce que xam nga temps yi rek COSYDEP génn na fi benn euh, kii euh, rapport sur la marchandisation de l'école de l'école mais moom dafa ne école privée yi dafa mel ni léegi ak ay ja jaba xam nga lan mooy jaba ci wolof hmm. moom mooy marché dafa mel ni marché da ngay jaay daal hmm. école privée yi sax mën nañu ko nangul peut-être que nañu ko yokkee moom moo kiiwul mais ñoom seen kii moom mooy dañu am service bu ñuy offrir hmm. à la place ñu rembourser leen mais école publique école publique la te constitution bi lu leer la l'état a moom moo war da am devoiru jàngale xale yi mais nag am na loo xam ne lii parent yi mën nañ ko jël di jël di ko ci yokk pour jàppale waaye fekk dañoo jël yéen benn dal du ko yéen parent bi ba soixante dix pour cent maanaam téeméer bu nekk juróom-ñaar fukk yi yëpp loolu day jóge ci parents yi parce que boo ko seetloo école secondaire yeeg moyens yi léegi parents yi ñoom ñoo koy fay ba pare nag yow nan ngay jël sa xaalis di ko dugal ci école ñu daal di ne surveillant préviseur ba moom mooy président conseil de gestion ba intendant ba moom mooy trésorier bi parents yi nag lañ ci nekk ne yàcc yàccaar dugal si seen xaalis ba pare du ñu xayma du ñu évaluer loolu nag il faut que ça s'arrête ñun en tout cas campagne boobu la ñu nekk te dinañ informer largement tous les parents ñu jël seen responsabilité mënuñu nag dal di sanctionner waaye ñun suñu devoir moom mooy informer bu ko defee ñoom ñu dal di exiger à ce que chaque établissement soit doté d'une APE fonctionnelle boo xam ne bii bu problème amee ñoom ñu mën a taxaw dal di ci ci daal est-ce que UNAPES ñoom am nañu euh, financièrement ku leen appuyer ku leen jàppale surtout euh, ci ubbite école bi fourniture yi cher lépp cher amul mm peut-être partenaire yu leen di jàppale yéen waa UNAPES ci côté boobu euh, ñun euh, duñu fonctionner noonu association d'éducation populaire lañu ñun li ñuy fonctionner mooy suñuy ressource propre ay carte de membre carte de d'adhésion yi nga xam ne yi moom la ñuy euh, maanaam euh, euh, jaay bu ko defee ristourne genn wàll gi genn waal ñëw koy def suñu kees dinañu pen moo ñu permettre suñuy déplacement yi ak suñu communication yeeg ñoom seen ñoom seen donc ñun noonu la ñuy fonctionner am nañu une subvention aussi du gouvernement boo xam ne bi dinañu mën a du ministère quoi bu ñuy mën a permettre et c'est normal ñun c'est une ay acteurs lañu luy appuyer système bi en retour war nañu subventionné mais ay partenaires yoo xam ne yi dañu bëgg a ñëw di ñu dal di jox xaalis déjà ku ñëw sax dañu offrir dara dinañu xool ban statut la am parce que yenn saa yi man doon de l'argent sale te loolu day day fausse réputation wu euh, sunu organisation d'autant plus que ñun ñun on est euh, secrétariat international des parents d'élèves daaw bi mu organisé wu fii à Dakar congrès bi fii la ñu def siège national international bi te am na benn réputation boo xam ne war nañ ko mën a am ba tax na yeneen réew ñi bi ñu amee ba am confiance yi pour ñu doon def siège bi à Dakar donc euh, ñu am nenn loo xam ne loolu ñu koy doxal doxalee donc euh, loolu daal moom moo tax euh, du n'importe quelle mm-hmm. ah, pour xool wax dëgg yàlla si de l'argent boo xam ne dañ ko dañ ko bëgg a blanchir parce que réew mi lu ne fi. Euh, bu boobaa ñu mën a apprécier loolu daal la ñuy euh, moom mooy suñu kii quoi. Euh, ñu gis ba léegi concept ubbi tey jàng tey hmm. rêve la rek boo xam ne réaliser guñ ko. yan lan moo tax lu ni mel mënugul am yan condition la laaj exactement. xam nga ubbi tey jàng tey wax naa ko processus la aw yoon la aw yoon la boo xam ne bi dañu naan par exemple bës sàngam dinañu ubbi mais bu ñu nee bës sàngam dina ubbi lu caagin ne te bës ba ñëpp ñooy ubbi noo amul fenn ci àddina bi. li valable Fouta valable Dakar wala Kaolack wala feneen ku nekk da am say réalité réew mi am na benn zone boo xam ne bi actuellement ba tey mu ngi taw kooku nan nga leen di wax ubbi tey jàngi tey ce qui dire que yooyu yëpp da ngay adapté wu par rapport ak situation contexte ba mais li am solo ba am solo mooy bu ñu nee ubbi tey même bu fekkee ne le six lañ ko bëgg a def nañu jàpp ne aussi d'ici le quinze dinañ mën a def de telle sorte que ouverture bi vraiment effectif ci établissement yi Sénégal bi yëpp quoi donc principe bi loolu la ñun euh, loolu lañ ko déggee mais ñu ne ubbi tey jàng tere ñoom ne bëri rek dal di ñëw kooku moom mënul nekk amul fenn voilà. Euh, tamit ngeen am euh, ñu am ministre éducation bu bees. Mhm. di Cheikh Marane yéen lan ngeen di mhm. xaar ci ci ministre bi. ah xanaa am njortu bu rafet ci moom rek parce que bi muy jël service fonction wax na lu leer nee day continuer ci tànk ki fi newoon ki fi newoon dañ koy gërëm di ko ndaxte wax dëgg yàlla ubbeeku na woon. te aussi euh, lépp lu muy def dañuy associé dem nañu ba même sommet mondial bi ñu def New York le 19 septembre bii ñu boole ñu ci ñu ñoo defar document yi nga xam ni moom la Macky monsieur le président Macky Sall présenté à l'ONU ba pare ñu invité ji man mii demoon naa ca je crois que loolu déjà ouverture la boo xam ne bii mësul am ci Sénégal association parents d'élèves ñu dal koy invité au plus haut sommet je crois que yooyu ay ay firnde la yu ne ah comme que nee moom dina topp ci tànku kële ñu yaakaar ne bu fekkee ne deferee ko loolu rek ñun ngi fi waaye nag ñun nañu jàpp ne ñun dañoo diggu doomu faraluñu kenn lu du suñuy doom bu ministère bi defee li mu war a def teg ko ci yoon ah ñu dal di koy wax bu defee safaan bi aussi dañ koy dénoncé de dañ koy dénoncé donc euh, faraluñu kenn ñoom daal du ñu signer chèque en blanc à kenn hmm. ku ñëw daal dinañ la déglu bu ñu gisee sa jëfin dal di méngoo ak li nga wax dinañ ci jàpp bu fekkee nag jëfin bi dafa mé dafa waroo ak li nga xam ne lii moom ngay déclaré ñu dal di koy wax ñëpp dal di koy yëg parce que askan wi moom moo ñu tax a jóg ak suñu doom. question ci abri provisoire yi ba léegi réglé gul. Euh, kon lan ngeen ci suggéré ministre de l' bu bees bi di Cheikh Oumar Anne. xam nga depuis euh, ay at a ngi nii doon nañu wax ne euh, juróom-ñetti junni abri provisoire ay mbaar ñoom ñoo am ci Sénégal ba après sax ginnaaw bi ñu créé benn projet bu ñuy wax PRORAP. mooy PRORAB mooy projet boo xam ne bii dafay bëgg wàññi pro euh, abri provisoire yi ñun nag jot nañu def réunion sali biñ ci waxtaanee ñun lu leer lañ leen waxoon dafa yomb trop nga dal di ñëw ne par exemple ci téeméeri bu nekk wàññi dindi nañu juróom juróom fukk ñun dañu bëgg ñu dal di defal benn tableau dal di ne fongo leen bi gële amoon na ñetti école yoo xam ne am nañu temps abri provisoire defal nañu classe yi en dure lii moo ci des wane ay photo nataal ñu dal di xam ne lii am na mais dal di ñëw dal di génn sa rapport dal koy bind ne lii ak lii ak lii alors que sur le terrain mën na doon safaan bi loolu am ànd ñu ci ñu ngi liggéey nag yenn saa sax ñu dégg ñu projet ba ñu jox xawma diw waa ji dafa ñëw sotti fa suuf suuf rek wala móol te te yeggul donc euh, li ñuy wax daal mooy nañuy informer régulièrement li ñu naan de compte chaque fois bu ñu defaree mais nañu informé dal di wane def benn kii même communiqué boo xam ne dañ koy jaarale ci presse bi wane ne par exemple région de Kolda école sangam ah defoon na amoon na abri provisoire ren dindi nañ ko ba lii ak lii moom dal di wane informé nataal je crois que loolu bu ñu ko defee dina leer ci bëtu nit ñi ñu xam ne lii kat mu ngi avancé donc loolu daal moom la ñuy suggéré ministère bi pour euh, politique de communication bi que soit soit accompagné de d' image de image yoo xam ne dañuy si teg suñu bët ak bërëb ba fa mu nekk. nañ ko fa dindee ñu dal di koy leeral ñëpp gis ko. Abdoulaye Fane Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. voilà jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla yokk. may fàttali yow yaa jiite UNAPES di Union nationale des associations des parents d'élèves Sénégal. waaw jërëjëf jërëjëf.